awuzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaan irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara te leen ndokkeel e, fas yéene leen a indi liggéey bu am solo boo xam ne waa fédération xidmatul xadim bu Touba France indi nañ ko muy liggéey boo xam ne dañ koy indi ci Touba at mu jot muy liggéey bu am solo boo xam ne taalibe yi nekk foofu dañ koy indi ci kilifteefu Serigne Cheikh Bamba mu Cheikh Abdoul Ahad xam ngeen ne daaw indi nañ ñaari oto yi yoo xam ne dafay milance jumaa ji muy def liggéey bu am solo ba léegi ren jii nag ñu indi liggéey bu am solo ci indi morgue boo xam ne e, dafay am capacité e, fuki trois ak juróom muy quinze trois nga xam ne dana mën a jël fukki nit ak juróom bokk ci morgue yi gën a moderne ci àddina bi ñu jënde ko France muy walooru e, douze mille huit cent euros parce que huit millions cinq cent loolu nag liggéey bu am solo la boo xam ne Eh, ay ndaw eh, ñoo ko def ngir participation ci liggéeyu Serigne Touba bi eh, ñuy Serigne Modou Kara ñoom ak Serigne Khadim Diagne ak mbokk yi ñu àndal ak Serigne xa Cheikh Ahmad Bamba Thiam moom mi nga xam ne ñëwoon na fii moom it ngir réceptionné bagage yi ni ni ni ko waxee bi nga xamee ne liggéey bi sotti na te ñu jokkoo ak ñun te ñu jox leen ndigal ne leen nañ ko def ci turu xalif général de Mouride ndax sëriñ bi moom mooy ki nga xam ne moom moom liggéey bi ndax dayra Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ci la liggéey bi di jaar ci ñoom sëriñ bi daf leen a jox ndigal ngir ñu taxawul ko jumaat ji ak lu ci aju taxawul ko armel yi ak lu ci aju mu am liggéey bu ñu leen dolliwaat bi nga xamee ne armel yu bees yi sax ubbi nañ ko ñu tuddee ko baqiya nga xam ne fi mu nekk nii liggéey bi dafay gën a yokk margo bi nga xam ne moo nekk ci biir douze trois la te dañu parawaaroon bu góor ak bu jigéen te xam ngeen ne sax benn bi amul secours boo xam ne moom moo koy mën a euh, conduire ba mat ni mu war a mate gis ko ni douze trois la yoo xam ne